xibaar bu wóor gaaw ñu saytu ko ba mu leer jëm si wàllub yoonu murit ak lépp luy actualité yi rawat na lu jëm si njabootu sëriñ Daaru Asan Njaay gaaw leen gaaw ngeen abonné si Daaru Njaay TV mooy seen chaîne de référence di leen di indil ay xibaar yu yi ngeen itteewu Daaru Njaay TV di leen toppal lépp luy information 24 heures sur 24 gaaw leen gaaw abonné bés cloche bi su ko defee ngeen doon membre di am lépp saa su ne fii si Daaru Njaay TV لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين المكين وعلى آله وصحابته ذوي الرضوان والتمكين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوكي جلدي بوكي طالبي mboolem fu ngeen fi bàyyi ko ak mboolem ñi nga xam ni nekk ci nekkuñu ci jotaay bi waaye ñu ngi nuy bàyyi xel moo xam ci réew mi moo xam bitim réew sëñ Abdul Qadir xalifab sëñ Daaru Asan mooy yëkkati kàddoom di leen nuyu nuyoo boobu mi ngi ko ànd ak mboolem ay rakkam te sëñ Moustapha Fatim yi jëwriñam nekk nii toog ànd ak mboolem rek seeni rakk sëñ Cheikh Ndiarème mi ngi fi sëñ Moustapha Jobbe sëñ Cheikh Mouhamadou Ndiaye Assane mboolem rek jëwriñu kër gi kon ànd ak seeni njaboot yëpp rek kon ànd ak taalibe yi kon sëñ Abdou Khadir mi ngi leen di nuyu mi ngi yëkkati kàddum nuyoo waaye di jiital ci nuyoo boobu nag cheikh Mouhamadul Muntaqa ibnu cheikh Mouhamadul Basir mi nga xam ni tey moo fi toog toogaayu sëriñ Touba radiyallahu anhu di ko ñaanal yal na ko yàlla gën a yàggal suñ kanam gën koo tëbb kàttanu wér ak i xiiwal ba yéene ji mu am ci diine ji yoon wi réew mi bokk gi adduna bi lépp rekk mu jëf lu sedd xolam doonte lu baax du jeex yemul fenn waaye mu liggéey ci ba xolam sedd guyi lu ko wen njortam ten ànd koog moom naka noonu lay nuyoo sëñ Ahmadul Muxtaar lu fi toog toogaayu Cheikh Mouhamadou Moustapha radiyallahu anhu ak njabootuk sëñ Touba gépp ak njabootuk Cheikh Ahmadou Moustapha gépp di ñaan suñ boroom moom sëñ Ahmadou Muxtaar suñ boroom yàggal ko ci kanam njaboot gi te àggale ay mébétam yéeneem ci diina ji ci yoon wi ci bokk gi ci réew mi ci adduna bi nu ànd koog moom kon sëñ Abdul Xaadir mi ngi leen di sant di leen gërëm ci lii nga xam ni da ko fee fekk ay woy juróom ay magam di ko awante ba mu agsi ci moom ci dogalub suñu borom tabaraka wa taala muy liggéey boo xam ni sëñ Daaru Xasan moo ko seqoon nag sëriñ bu mag bi di sëñ Tuubaa radiyallahu anhu ba làq ngërëmam làq gu wér goo xam ni sëriñ bi moo yaxal ci xalima xam ni xam le ni sant na sëñ Daaru Xasan gërëm na ko te fekk sëñ Daaru Asan loolu la doon wut ci sëriñ bi moom itam bi mu dikkee yaxal ko ci xalimaam ba sëñ Daaru Asan ab liggéeyam matee am njaboot am ak njabootam di ko wuutu sëñ Abdou Faati Mbaalo sëñ Fallu Njaay ñu di ko awante di ko awante ba way jur yi jóge fii sëñ Abdou Rasaaq mujj ci ah, sët yi jël sëñ Mbàkke Awa di ko jëkk ñu xam ni sëñ Abdou Rassaq moo mu nga xam ni moo mujj ci njabootuk sëñ Daaru Asan liggéey bii mel na ni mooy ku ko ubbi moo taseeg jamono joo xam ni xam na ni jamono am na lum laaj tax mu daal jël tànkam taxaw ca loola te mooy ci la sàkkoo barab bee nga xam ni moom ñuy wax kër sëñ Daaru Asan mu tase feek booba jamonoy Seex Saalihu radiyallahu anhu anhuma mu sàkku ci moom mu jox ko pàkk boobee pàkk boobee fa lañ def ko sëñ Darou Assane daara yi sëñ Darou Assane ji bokk ci tax bokk ci li tax ñuy woote jaayante bi daara ja foofa la ne kon boobu liggéey ci sëñ Abdou Saax la ubbi ko bi fi jógee doomam yi sëñ Mbàkke Awa mi fi ah muy magoon jël liggéey ba sëñ Seex fa si la wuutu ko ta sëñ Mbàkke fa si la wuutu ko ta ba mu ci sëñ Abdul Xaadir mi kon liggéey bi moom mosu fee jóg waaye nag jamono ju ne dafay am lum laaj adduna day dox di soppiku kon nag faw ñuy méngale mbir yi ak doxinu adduna ak fi adduna toll loolu moo indi tey lii ñuy wax jaayante jaayante nag Abdourahman mi ñu joxoon ndigal mu def ci leeral leeral li mu ci def macha allah mat na sëkk ak kàddu gi ko jiitu di Abdou Ndiaye Wilaya ak Mbacke Matikan ci soññe bu am solo moom itam bi mu yëkkatee moom mbakke Matikan jëmee ko ci mboolem ñu nekk bitim réew ak dëgg yu am solo yi mu ci kenn ku ne yaa ngi fi barab ca bitim réew di am loo fay def waaye nag kër sëñ gi nga bokk nga bàyyiwaat ko xel jiital ko ci lépp lañ la fa laaj nag lañ lañ la fa soxlaa boo ko defee ba noppi ah boo dee maye ab liggéey nag sañ ngaa mañe maye ab liggéey ni mu ko waxee lu baax du doy waaye nag bàyyi sab tool mu ni liif akum ñax nga ni dangay maye jib liggéey du mbaax ak ndof la kon nag nan moytu ak ndof dara jëru ko sëñ Seex Mbàkke Gaynde Fatma nee na woon lu ne nit mën na koo ñàkk ñu mottili ko ba mu des ñàkk fulla nee ñàkk fulla moom ku ko def si fini kenn mënatu koo matal leneen lu mu nag mënees na caa dimbale kon noonu ko Mbàkke waxee dëppoo naag ndigalul sëñ bi dëppoo naa bëggug sëñ bi ñëpp nañ laxasaayu jiital ko sëñ Darou Assane ci lu mu mën di doon kenn ku ne nag la nga lañ lay séentoo ci ko sëñ asan boo ko defee boo gisee feneen lu ñuy defe lu baax nga sañcaa barkeelu loola barkeelu rekk lay tudd waaye sas wi nag nga xam ni ëllëg bu ñuy nott say àndaar say àndaar di ko natt àndaari góor ñëpp fa ñuy xool sa mbir di la fa joxe ndam di la fa joxe ay martaba mooy kër sëñ Daaru Asan gii nga xam ni fi la sëriñ bi boole kon sëñ Abdou Khadir mi ngi sant ci liggéey bii nga xam ni mbooloo mi ñoo bokk di xalaat di waxtaan ba tër liñ tër dikk wax ma ko man mii ma jottali ko sëñ Moustapha Faati mii mu waxtee ak moom mu rafet lu ko joxe ci ndigal ñu nañ koo wéyal mooy ah, bis bi ak jaayante bi kon nee na mi ngi ci amuk cant di ko rafet rafetlu bu baax a baax ba tax na nee na keroog bi gën a ñëwee rek bi ñuy wër kilifa yi di feddliwaat kàddu gi ñëw nañ ci moom waaye dafa yëkkati cent mille francs ndax cent mille francs yi ñu tudd rek ni mooy li ñuy jaayante fii ci senegal da koo joxe waaye nee na nag loola ubbi buntu la waaye un million la jaayante dana ko joxe sëñ na un million jaayante dana ko joxe ñaar fukki junni yooyu leen joxoon barkeelu rekk la ak ubbi bunt bi kon nag loolu wane na ni sëriñ bi ànd na ci mbir mi bég na ci kon nag sëriñ bi gannaaw cant yi ak yi si xalaat bu rafet bii ak jógiin rafet bii dëppoo fi jamono toll kon loola li ciy topp nag mooy jox leen xelal leen waaye soññu leen gannaaw bi mu leen santee gërëm leen rafet rafetlu liggéey bi taxaw ci taxawaay boobu te mooy dana ci jaayante un million kon faw mu jox leen ay xalaat yoo xam ni xër gum xër ci mbir mi ak neex gu ko mbir mi neex moo tax mu di ko joxe ngir rekk buñ fa xasee jóge lii doon loo xam ni aw doxalin lay doon woo xam ni lépp lu soxala ci kër sëñ Darou Assane ci lii lañ koy doxale jaayante nag kenn ko ne xam na ni fu lislaam àgg jaayante moo tax mu àgg fa ni ko ba bay ridwaan ba amoon ci jamono yonent bi sallallahu alayhi ba ci ah, saxaaba ba ci Sëriñ ci yoon wi ñu nekk lépp rek jaayante fu liggéey bi àgg moo ko fa àggale Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu jaayante na ca géej ga jaayante na ci jéeri ji fii ci jaréel bu dee ca géej ga daa wax ni baayatuhu fil bahri taxta sajara wal bahru musbidun wa xawlil fajara nee na jaayante maa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci géej gi ca garab ga nee na booba géej gaa ngi sànni duus booba ñu ma wër ay saay-saay lañ ay kàccoor lañ ay noonu yàlla lañ noonu yonent bi lañ di samay noonu mu waxaat ni baayatuhu fil barri taxta sajara wal ardu tayibun wa xawlil barara jaayante maa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fii ci njaaréem ca booba suuf saa ngi leer ñan teey ñama wër ñëpp ñu baax lañ nit yi yàlla lañ di sëñ Daaru Asan ak ñam àndaloon ñu àndaloon ak sëriñ kon sëñ Tuuba ñaari jaayante yoo yëpp def na ko jaayante na ci géej ga jaayante na ci jéeri ji fii ci njaareem kon jaayante lu rëy a la ndax mooy fas kóllëre rek fas kóllëre sa digg ak nit wala sa digg ay nit ne nangam ji ngeen ma woo wuyu naa leen ci ci ni ko santaanee danaa ko defe noonu bu ma dee dund ak bu ma dee dee jaayantee ngoog am njébbal sax jaayante la dangaa jaayante ki nga njébbal sa bopp ci lépp loo ma digal ci danaa ko def loo ma tereti danaa ko baax moo xam neex na ma moo xam naqari na ma kon lépp lislaam jaayante la mën nga ni sax lépp lu baax jaayante la am réew sax buñ ko dénkee buur faw daa war a toog jaayante waat ni doyloo gi ngeen ma doyloo ci lii ngeen ma dénk du leen ci war du ma leen ci sàcc du ma leen ci fen ak lu kon jaayante lépp ndax lépp lu ñu defewul noonu bu ko neexee mën na caa génn bu ko waxee tey bu subaa mu génn kon nag jaayante gi sëñ bi nee na kenn ku ne muy góor muy jigéen na jaayante bu kenn toog fas say loxoom li am solo nag mooy kenn ku ne la ngay jaayante ko def gannaaw dañ koo tàmbalee ci ñaar fukki junni ku man lu ko ëppit baax na ba fukki junni ba juróomi junni ba ñetti junni ba ñaari junni kenn ku ne na nga seet la nga mën ci yooyu nga bind ko te na nga ko def foofu la solo si ne wax gi te defoo amul benn njariñ danaa joxe ñaar fukki junni te doo joxe ñaari junni amul benn njariñ te njariñ ñëwu ci tey njariñ ñëwu ci ëllëg ndax yàlla kenn nu ko nax kum neex tey nga toog fii ci jotaay bi wax lu la neex te boo fi jógee mel ni doon yow bari na lu muy am ci mbooloo yi waaye loolu nañ xam ne amul solo nun waa kër sëñ Daaru Asan loolu nañ ko jompale suñ bopp ma ne nun waa kër sëñ Daaru Asan kenn ku ne na jombale loolu bopp kenn ku ne na nga seet la nga man sëriñ bi nee na nga bind ko te xar ca xar xar ca sa tànk tubéy ni ko la fi wax suñ ko defee rek lii ñu wax naan ay 66 millions mën nañoo dem ba am ñaaram bu fekkee lii sëñ bi santaane kenn ku ne bind ko te defe ko defe ko noonu ku yaakaar sëñ Darou Assane ci réew mi ak bitim réew góor ak jigéen ma ne kon lii ñuy wax bu tasee mën naa mat ñaar mën sax ñetta kon sëñ bi mi ngi soññ ñëpp ci jaayante bi kenn ku ne seet la nga man gannaaw coobe réew la nga te na nga ko joxe bala 2024 bi di di di jeex bala 2024 bi di jeex kon loolu mooy ndigali sëñ bi ci jaayante bi ak bindu bi ak jëfe gi kon mboolem yéen ñi nga xam ni it yéenay njiit ñi yéenay njiit yi jiite lii sëriñ bi mi nga jëmale ci yéen kàddu yi dénkaane ak ndigal ak ñaaxaate bari aana mu ni mbooloo moo xam ni woote nañ lu mel nii mu dem ba yàgg am leneen lu ca dugg muy saytaane soos yi xaadim imaam doon wax ak e, abdourahman ak abdou ndiaye ñi fi jëkk a wax waaye saytaane dees koy daw nag seytaane dees koy daw ku bari doole la ku bari pexe la waaye boo saxee ci di ko daw nag amaana du la jot ba di la yàqal kon mbir mu mel nii ñu di ko tàmbali muy lu am solo kilifa yi ñëpp ñëw toog nii ñu ci bari ci jotaay bi joxe nañ seenub jaayante taalibe ñëw toog nii kon loolu lii du lu tuuti lu ama am solo la kon nag lu mel nii dana dikk ci li Abdou Ndiaye Welaay doon wax ni dégg na ma doon ko wax loolu du woon samay wax dayira bi bi mu sosoo di jamaatu ahibaay Cheikh Al Hasan góor gu baax dib teeli ba yàgg ci kër gi moo waaxoo këram ba ñëw sama kër doon waxtaanam man wax moon waxoon ma lii ci dayra bi te boobee moo koy wax dayra bii day soos door sosu ba agsi fi mu agsi kon la ma waxoon tey am na firnde neex naa nett bi Baye Cheikh Fall du Cheikh Fall Kumba njaay lañ ko daa waxa Baye Cheikh Fall Kumba Ndiaye ku ko xamul mooy woy juru Moustapha Fall maçon biñ sosee Ahibahil Cheikh Al bii moo ñëw ba sama kër ñu bokk toog mu ni ma li ma yëkkati day lii ngeen taxawal laa bëgg wax ak yow ni ma man nag sëñ Daaru Assane lañ ma tuddee waaye nag xaw ma ci moom lu bari xëy na bu ko fekkee jamono it kon day ndaw ba xamul ci moom lu mën a wax mu ne ma waaye nag ba mu jàllee day sëñ Fallu Njaay ak léegi dala ëmp ma fi mu ne ma waaye gis nga lool yi weesu ma fekke ko ci sëñ Fallu Njaay ba tey jii may waxee ak yow la muy am am am am solo daa mel ni rek dugub joo doon bay ba nga xam ni nag toll na ci focc ak palpal ak am pepp ak ñoom mu ne ma lii ngeen taxawal tey si kër gi noonu la demee ak la jiitu woon teg sa ni ma waaye nag na ngeen xam ne waxe mag day mat nay bàyyi xel ba ma koy wax booba wuti naa ak de waaye nag it loolu man yëg naa ni man mii yëg naa ni am na ci de dox na fi de waaye nag sëñ Daaru Asan moom ku koy liggéeyal te sa pas-pas sell sa pasteef kawe saytaane du man ci waaye la mbaxoon day saytaane song na ba tàyyi nag mu ne ma na ngeen xam ne lu jëm ci yàlla lu ne lu baax lu ne nu mu toll sa cay dugg ngir yàq ko kattanu loolee lay indaale na loola toll rek kattanam noonu lay dikkee sëñ Cheikh Fall Ndiaye Cheikh Fa sëñ Cheikh Fall moom moo waxoon li ci sama li Abdou Ndiaye di wax noonu noonee ma ko waxoon na la demee liggéey bi saytaane songu na songaat songaat waaye rek mi ngi dem rek ba agsi fii mu agsi te bañ ko tàmbalee la saytaane tàmbali du dem li ñuy woote ñu fi gone la waaye du dem ñenn ñi tàmbali nañ ko waaye du wéy ah booba ak léegi du 97 97 ak tey ndax demul ci ñaar fukk at juróom benn wala muy bëgg dem juróom ñaar du mbooloo maa ngi dayira baa ngi ñi ngi tey woote jaayanteb dajale 66 million te jàpp nañ ni da koy romb kon yëf yaa ngi dox waaye nag seytaane moom du tàyyi benn yoon sëriñ bu jàngale na mbiram saa boo ko jàggee ruur defe ne yaa ci ne na nga daal di xam ni xelam lenn nekku ca dul daal di jóg songaat la beneen cong moo xam ne bokkul ak moom la songal sëñ bi loolu la jàngale kon nag nañ koy bàyyi xel kon nag sëñ bi nee na yéen njiit yi nga xam ne yéen a jiite lii na waxtaanaat bu baax a baax nosuwaat bu baax a baax wut ñu wér ñoo xam ni lii ñuy dajale ci seen loxo lay nekk fu muy dugg bu dee ci compte bancaire seeni si seeni signature moo ko fay dugal bu fay génne seeni signature moo ko fay génn sëñ bi nee na na leer nan ni nañ ko weer nee na mbooloo kenn du leen laaj alal di ko nës nës la ko nëpp nëppal nañuy leeral saa su ne nañuy wax ne woote biñ woote woon nanga mi nit jaayante nañ ca loolee ñu jaayante toll na ci nangam dugal na ci compte bi jotaay sangam bañ fa dosee nan jaayante nangam la dugal nañ ci compte bi waxtu wi nangam a ngi ci compte bi sëñ bi nee na leer sebagian mo dam sen binana na ilah comité bi nañ sàkk ñoo xam ni ñuñu xam nañ fu ñu wax seen tur ñu xam ni kii de moom na ci liggéey bi te kenn su koo déggal mu yàq benn dërëm nañ wut ñu mel noonu dénk leen ko su ko defee xelum ñépp dal kenn ku ne sawar joxe sëñ Cheikh Mbacke nee na woon kuy laaj nit ñi dee leen laaj lu ñu man te di ko dugal fu ñu xam kon nag sëñ bi mu ngi taxawaat foofu bu baax a baax a baax ngir yéen ñi nga xam ni yéenay commission boobu ñu wax ne léegi dem nañ ci juróom-ñaar fukki nit ak ñett xaw ma juróom yéen ñooñu na ngeen toogaat waxtaan ba lii ñuy dajale ñoom jëm fi mu war a jëm bu ñu àggee ci war ko liggéey it fépp fu mu nañ seet ab commission dénk leen ko ñu ne dañuy àggale daara ji nañ set ab commission dénk leen ko commission bu ñu xam ni ñii ñu wóor lañ ñu ànd àggale daara ji gannaaw xaalis teew na bu buñ tàmbalee weer ñaari weer ñetti weer mu àgg kon loolu yomb na bu xaalis teewul ñu naan dañuy dajale di liggéeyee lay yàgg waaye nag bu xas xaalis xasee teew liggéey day daal di jàpp ñaari weer mën nga cee liggéey lu bëree bëri bu ñu àggee ci jumaay dëslaam jàmbur ja noonu bu ñu àggee ci leneen noonu loolu daal sëriñ bi nee na mi ngi leen ci soññ buñ ko defee lii dafay jóge doon aw doxalin woo xam ni lépp lu ñu yitteelu ci kër sëriñ Daaru Asan ci yoon bii lañ koy jaar li ci topp mooy ñu xam ne kenn ku ne ni lii yaa ciy coobarewu jaayanteel sa bopp du caagéenug yib la jëmb mooy soññu kenn du caagéenug sëñ Abdou bu weesee soññe bii mooy woo kenn di ko soññ du caagéenug jeneen jëwriñ ca di xalifa baayam ca kër baayam mooy woo kenn di ko soññ kenn ku ne yoway jaayanteel sa bopp cent mille francs wala cinquante mille wala vingt cinq mille wala quinze mille wala dix ñu bind la ko nga joxe ko ci sa loxo bopp waaye di loo xam ni kenn day toog di séentu naan sama kilifa moo soññee loolu du taalibe du sëriñ ma ne taalibe du doom du rakk kenn ku ne yow jël sa engagement bopp ah xëy na nag ku am calarte ak kilifteef ca ña nga jaboote ak yéene yi ñu matal ba tax kenn ku ne nga di ko andi loolu it ba tey mën naa ne koo xam ne da ngaa am kilifteef gu mat sëkk ca ña nga jaboote ba mën nga leen a teg loo xam ne duñ ko teggi ànd ak nga xam ni xëy na boo leen seetaanee nañ ci war a doxe ko ne doxe ku mel noonu moom sopp nañ mu wuutu kilifa gi ca njabootam googee waaye bu dul loolu daal bu kenn toog di séentu naan sama jëw ni may sonn wala sama waajur may sonn wala sama maga may sonn wala sama sëriñ moo may sonn ci jaayante bii nag laa wax loolu it sëriñ baa ngi ci joxe ndigal bu baax a baax góor ak jigéen nag jigéen ji it moom toog naan sama borom kër a boroom kër bi nag ni ma waxee rek bu doonee ku xër ci liggéey bi fas yéene am njabootam du dem bàyyi leen te xam na ni bu joxee sasam ni cell amaana duñ joxe kooka sopp nañ mu dajale njabootam ni leen kenn ko ne yow diw nga ne ko nangam mu ne indi mm-hmm. binduwuma nga ne dalal dimbi lu waxal la ngay bindu waxal li ngay bind wala bindul nangam indi wala joxeel naa la ko lu ci ne mën naa indi walla joxeel naa la ko lu ci ne mën naa waaye soññe yi daal noon la waaye gàllu gàlluñu ko ci loosu kenn ngir muy soññe du président daayira du sëriñ du keneen ni ma ko waxe kon nag sëriñ bi kàddu yooyu la amoon ci lu muy wax dellu di leen sant di leen gërëm saa su ne ñaan yi muy ñaan yenn rekk la mbir mi daal mi ngi ñaan ci daraje seen dewru asal mu dëgër te àgg te yëwén waaye nag jumtukaay daa munte ñàkk ciy tool am na ku ko wax léegi mag ñi biñ fi jóge jumtukaay yaa ngi fi waaye daa waroon a jëkk wax sax ni tool yaa ngi fi ndax tool mooy jiitu jumtukaay da ngay am soo bay suuf soo bay ba noppi dem wuti ay jumtukaay ak jiwu tàmbali bay nag xaar yàlla tool yi kon jógu fi tool yi moo di yi mag ñi doon liggéey mooy diine ji yoon wi bokk bi ñetti tool yi rekk la bokk gi nag mën nga koo yaatal a yaata yaatal bokkum dëkkandoo bokkum la xarab bokk ma nga bokkal ca marché ba bokk ma nga bokkal di tukki kon bokk gi mën naa yaatu waaye ñetti tool yi mag ñi ci lañ daa xëy di ci gont ba luñ góobee ci lañ ko góobee diina ji kon xanaa bu ñuy jaayante ni dañuy àggale nu mu tudd daal seen deru asal xanaa loolu boole na diine akuk taalibe mani boole na diine akuk taalibe mani bu ñuy jaayante ni dañuy àggale jumaa ja ca Darou Salam ga nga xam ni Cheikhuna Ahmad al Khadim radiallahu moo joxoon sëñ Darou Assane digal mu ko ma ne xanaa loolu boole na diine akuk taalibe ak leneen ak leneen ak bokk gi nag ci biir ndax bokk gi mi ngi ci biir ndax daara ji kenn ku ne bu taxawee mën ngaa andi sa doom mu jànge ca alxuraan kon liggéeyal jullit ñi mi ngi ci loolu te liggéeyal jullit ñi li si sëñ bi wax am na solo wa qiila in xadaro yowmul yowmul baari wa qiila in xadara yowmul baari wa duriba siraatu fawqa annaari naadaa munaadin Ah, ayna ahlul xidma lil muslimina fa ajaabo ajmain fa yoomaroona lil junaani musriin ba sëñ bi àggalee dafa joxe ndigal ndigal la mooy wax dim humoo turran li wajhillah sëñ bi nee na Seex Seexna Ahmad Xaadim buñ demee bis pénc bañ jël siraat gàcce ko ci jahanama kenn ku ne war koo jéggi soo nga dem àjjana boo dee dem àjjana boo dee kuy dem safaan ba doo mën a jàll da ngay sërëx jahannama yàlla na ci yàlla musal te jéggi ga dimbalul yàlla rek yërmande yàlla moo fa mën a jéggi waaye duy pexe ndax yaakaar naa ñu bari danañ dégg sëñ Samba yàlla na ko yàlla fayal muy misaal siraat ba tàyyi ak ñàngam akook doy waaram ca yëngu ba muy yëngoo zëng-zëng jaan mbas gam lay bas ak njuuy gam lay njuuy kenn mënu koo dégg te sun borom lu mu dana ko def ma ne sun borom lu mu dana ko def lu mu wax am na lu mu ne dana ñëw dana ñëw kon bis boobee mat naa bàyyi tolluwaay boobee mën naa bàyyi xel sëñ bi nag wax ni waxees na ni kere buñ teewee ca bisub aji bind jooji di suñ borom ñu jël siraat moomu gàcc ko ci jaxanam mu tiim jaxanam mel ni ab pont buñ gàcc kenn ku ne nag war koo jéggi mu ne bu boobaa nag ah njàqare yeeg tiitaange yi day day daj bindee fii kap ndax kenn jappul ni tey jii da nga mën a mucc ci jéggi siraat jàll mu ne fa saasa rek suñ boom jox ndigal aji woote mu woote ca kaw yëkkati kàddoom ñépp di dégg ana ñi doon liggéeyal jullit ñi bañ nekkee adduna nu ni ko noo ngi nii mu ne suñ boom nee na yéen lii bokku ci jawal leen dugg àjjana jawali leen dugg àjjana daal di ubbi benn bunt bu ni coow bu bokkul ak siraat ñooñee suñ boroom namm ñu daal di jaar foofee dem àjjana yal nu ci yàlla boole waaye nag ñaan gi it ci jiital sabab kon nag liggéey yi ñuy woote bokk na ci lool ci liggéeyal jullit ñi lii tax kon doo jéggi siraat suñ ca àggee nga dem àjjana directement yàlla na nu ci yàlla boole kon daal kàddu yi sëriñ baa ngi ci cant gi ak ñaan gi suñ boom gën noo tëbb kàttanug wér ak wërsëg ba liggéey bi ñu gën koy man saa su ne ko gën a jekku te sun boobaa mépp fóotal na suñuy xol ci lépp luy saytaane ak adduna ak biddaa ak lu yàlla gën a mun duyal nu ko ci leer yàlla yi fees dell ba suñ lépp di gëm yàlla nangu risalatu sayidna muhammad sallallahu alayhi wa nangu nangul sëñ Tuubaa radiyallahu anhu cëram bii ànd koog nag sëñ Daaru Asan suñ bunt sëñ baa ngi sant ñëpp bàyyiwul kenn mbooloo mi sëñ góora ñu ngi lay sant sëñ baa dikk gi nga dikk ànd ak ñun liggéey bi kàddu yi jaayante gi ñëpp rek ñi ngi sant sëñ baa ngi sant ñëpp bàyyiwul kenn kon nag ñi ngi tënk foofu kàddu yi sëriñ bi nag mi ngi déglu ndigal yi mu joxe ne ko ñëpp defe ba féeg màggalug sëñ Daaru ba 2024 di jeex lépp ci ana bi la ñu daal di taxawal lu ama am solo yooyu ñu wax yëpp ñu noppi ci woon ko ginnaaw daara ji noppi njàng mi tàmbali jumaay déegu njaay ñu woote ko julli ko ak yeneen ak yeneen yépp daal di tàmbali yeneen ndax liggéey bi du fi jóg nun noo fiy jógee waaye liggéey bi du fi jóg kon nag jërë ngeen jëf wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala tuwal su dee way naay ko dul may yaatu ay may ay di sëñ asan am daaru njaay Cheikh daaru mu jàmbaar saa su ngeen ni wërati xibaar bu wóor gaaw ñu saytu ko ba mu laar jëm si wàllub yoonu murit ak lépp luy actualité yi rawat na lu jëm si njabootu sëriñ Daaru Asan Njaay gaaw leen gaaw ngeen abonné si Daaru Njaay TV mooy seen chaine de référence di leen di indil ay xibaar yu gën yi ngeen itteewu Daaru Njaay TV di leen toppal lépp luy information 24 heures sur 24 gaaw leen gaaw abonné bés cloche bi